génne sarax am nañ yaakaar ci kattanu yàlla ne dina sedd daal. waaye glace bi daal na bëri ci. waaw glace moom moom lu ñu ci mëntee sotti rek ndax glace dafa baax. Mhm. glace tàngul dafa sedd. Mhm. te suñu réew mi sax ñoom mënuñu ko taal maanaam. Mhm. ndax comme ni ma ko waxee rek. yàlla moo yore nguur. bu fekkoonte ne ku mu neex doon buur kon man tey ma toog ke siège buur ba. bu nekkoon ku mu neex nekk buur kon tonton Ndiaye loo mii ci kattanu yàlla. Hmm. dana toog ci chaise bu ba yow sax man ngaa nekk présidente. ah man est-ce que gisoo ma sax ma nekk présidente waaw macha allah yàlla na baax na. xam nga loolu tamit doon baax nga dem ba par exemple son diggéen su gis naa la nekk parce que boobu. mais macha allah yal ko yàlla yokk fi nga toog ñeewoo ñeewoo présidente macha allah macha allah kuy wax dëgg rek parce que dafa yàlla dafa ne kul xaq waroon kaana mu doon. dëgg la fi nga toog ñeewoo présidente. ma alhamdulilah ndax alhamdulilah rabbil alamin nañ ko yemale foofu uh-huh. euh, yàlla mooy samp buur mooy fale moom mooy folle kenn du ne damay nekk buur abadan bu nekkoon loolu Seydina Muhammad du am du am du am bisam xaswatu Badr moom dafa gañe am na yeneen yeneen euh, guerre yoo xam ne dañ ko éliminer pourtant moom mënoon na ne mooy xaatimul nabiyina wa imaamil mursalin wante am na foo xam ne yàlla da ko seetaan ci la ñaan wallu yàlla ñun ne malaaka yi neen idribuhum fawqa a'naqihim ndax malaaka yi xamuñu dóor xamuñu rey ñu leen jël leen seen jaas yi ngeen dóor leen ci baat yi da ngay dem bay xàcc gis bopp ak baat taqalo kon yàlla mooy fale ma sénégalais yi xam loolu te bàyyi violence bi yàqu lu kenn ku dul sunu alal ku mel ni man ak ñu ma jege am na ñoo xam ne bu ñu añee duñu ñu reer boo ñëwee fekk am taabalam surtout taabal yi nga damay gis ñuy jël taabal jàmm di ko taal man dama naan est-ce que borom taabal yooyu ñoom nan lañ defaat ba am njëgu taabal mais bëggoon naa la laaj balaa nga fiy jóge euh, euh, Selbé Ndom ah ñu am lool lool lool ci nga toog fii mm-hmm. euh, bëggoon naa la laaj vision yi nga xamante ne nekk moom ngay am vision yi nga xam ne moom ngay am mën nga dox ci mbedd mi sax mu nga am ko ci koo xamul wala il faut nga xam nit ki nécessairement. déedéet. Hmm. bu noonu loolu man yonent musuma koo gis. yaay booy sallallahu alayhi wa sallam. Serigne Touba musuma koo gis. Hmm. Seydi Hadji Malick musuma koo gis. Hmm. maam Bañes musuma koo gis. maam Limaamu Laay ndim ndiggalaam gi man murit laa. waaye damay gis Seydi Hadji Malick moo tax may dem Tiwaawan. gis Serigne Babacar Sy moo tax may dem Tiwaawan dem naa Tiwaawan ñetti yoon. gis euh, euh, Mame Baye moo tax ma dem Niassène benn yoon mhm. sëriñ bi sant Cissé bi muy génn àddina nii laa ko gisee asamaan ci lañu lal ay basang imaam Assane Cissé barke laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mhm. barke laa ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi alazim laa ko gisee mhm. asamaan ci ñu lal ci ay basang mu def mbàjj mu rëy mu rafet wàcc si suuf ma yeewu ma ne waaw ah, asamaan si de am am na lu fi xew hmm. sama doom bi na ma yaay lan la ma ne ah hmm, man daal fee bi jaaxal na ma man daal mbàjj yi ma gis mu jóge ci asamaan si ñu lal ci hmm. ah man de jaaxle naa bi ma xëyee laa dégg ne na sëñ bi dafa doon julli fajar génn àddina ma ne ah Imam Hassan Cissé allahu akbar ngi jaale kooku kooku kooku nit ku baax la waliyu la ndax ci kaw lay bagaasam jóge mbàjj mu sàngoo ci kaw la jóge wàcc ci suuf bu leen gis niir yi rek dafa ne niir yu weex yi dara la yenn saa nga gis ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah yenn saa nga gis ci allahu niir yu weex yi ngay gis fii dara nekku fi bagage baa ngi ci kaw ñun li ñuy xool du ñun yàlla la du ñu ko damoo man kenn du ma gis ma wax ba fëgg sama dënn kooku bugguma ko sax ndax kenn rek ma war a fëgg dënn mooy yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne innahu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fa yakun man kooku laa gëm daal. Mm-hmm, mm-hmm. mais Selbé Alaaji bàyyi ma laaj la bàyyi nga kii Selbé parce que dama ko laaj benn benn dernière question bu ma koy dencal moom du du rëtt parce que Selbé fu mu nii mu ngi may daaneel ci laa ilaaha illallaah laajal laajal Selbé ma doog a ñëw. non man Selbé nag daa sama laaj yoom du sori. xel tax du sori mooy. Eh. <laughs> Alaaji <laughs> nii. ma ah, eh, lay sànni xel yett maa ko jëkk def Selbé. Eh. maa ko jëkk juddu mm. maa ko jëkk fer mm. maa ko jëkk a màgg maa ko jëkk tukki mm. maa ko jëkk liggéeyal doomi Sëriñ Bamba muy Cheikh Blaat Mbacke Baye Laat mi mu sol man maa ko jëkk a seetlu it si sëriñ man na ma ëpp nag baatin ndax euh, wàlliyu jigéen a koy jur waaye dama li man duma euh, duma ko laaj ndax du ko laaj mooy combat coow mën naa bari ci signature ba waaye bu at bi suufee xam kii daan. Mm. man xam naa kan ay selbe. ah <laughs> alaaji li ngay doy na présentation man su ma yëgoon noppi benn yoon <laughs> man kenn man ma parce que man nee xam macha allah xam nga yow xam nga xam nga. Mm. Euh, jigéen ju sell te tànkam gàtt. Mm. naa doon muuma. ci sa xam nga man euh, diggam euh, fukki juróom benn la ma Seex Abdu Laat jël. keroog ba may ñaanal may dem Angleterre di 66 du ma ko fàtte. Mm. kolog sooy gu xong. Mm. la dugg ci biir wanagam tibb suuf def ci ni ma ndax yor nga musaar man ko mun ma laal la ma laal mu sotti suuf sa. Mm. ni ma foo dem ba gis la jaaxal sangu ci. ba la yenoon asamaan dina muriku. 66 nag laa la wax. ndax boobu Banjul gi amuñu président. Pierre Ndiaye fa nekkoon doon député. ñu ngi may dégg télé laa kon yooyu su amee toujours ñaare. bu ma leen nee jàkk mm. mbaa ma dégg nit mm. dinaa xam na mu toogee mm. dama leen ni selbe laa leen du ma wax kanay selbe waaw baax na baax na baax na ah, bàyyi bàyyi ma dugg selbe parce que yow parce que yow fii nga toog rek yow di di di def kii euh, selbe <laughs> <laughs> yàq sama affaire déedéet <laughs> ndax yow say affaire neexut a yàq dama ne koo euh. na pare ndax yow te d'accord na maa yow euh. bu mbiréew tasee ta ñi koy tas kenn ku ne yor say pitaaw dëgg la alaaji ku fi toog di nga ko wax ni ko ndax lii dëgg la parce que moo yoon dëgg la alaaji ndax réew maa ngi tas dëgg la réew mi lu ko di fooyi dëgg la fooyi waaye bu ñu wax dëgg du demee dëgg la dëgg la Selbé yow di nga gis sa bopp est-ce que di nga seetal sa bopp la ilaha illallah hmm. muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa hmm. man day li may gis ci sama bopp sax man damay damay jaaxle hmm. sama bagage yi nii balaa moo takk tàkk. waaw seetalal seetalal ah waaw demal demal ci sa bagage yi. bagage yi nii balaa moo ñëw. ñan hmm. bagage mooy li nga àndal. non li ma àndal dama ko dama ko juddewaale. yan bagage maanaam eh, combat yu mag yi. Hmm. bi ma xamee ne dina dina dina exploser. Hmm. affaire bi dina jëm ci kaw. damaa tëdd ba guddi yàlla won ma señement Mansour si. Mhm. mu indil ma ay bërigo wàcceel ma ko ci buntu tali bi. Mhm. sëñ Mansour si. Mhm. indil ma ay bërigo wàcceel ma ko ci buntu tali ma xëy di tuur sama buntu nekk ndox. ma gis ay melentaan di dama ko ñëw. ma yuuxu ma ne wuy ay ñu ngi ñëw ñu ngi dama ko ñëw. ñu ne ma la ma nit ñaa ngi ñëw de ñu ngi ñëw ñëw leen ñëw leen ñëw leen. ñu di ma ree xam naa dina am ñeneen kii dafa dof. te xamoon naa ne ci kattan yàlla nit ñaa ngi ñëw ko dem. jékki-jékki yàlla woon ma gaz bu explosé ma ne woo affaire bi dina jàll ci kaw. Mm-hmm. moo mooy balaa ngay génn ci nit ñi balaa la nit ñi di xam ngay nekk di expliquer. waaw. Ah. parce que bi ma bi ma explosé. parce que di nga toog li da toog lu yàgg kenn xamul la nga toog sa néeg yow kenn ak say mbokk. am nañu ma waaw mais mais mais balaa balaa muy dem ci international beeg yooyu yëpp da nga gis yooyu yëpp loolu nga may expliquer. waaw waaw sëñ Mansour si. Seydi Hadj Mansour si. Mm. moo ma indil ay bërigo wàcceel moo ko ci tali bi. Mm. murit laa de. Mm. moom laa judd fekk sama papa nekk ko sama yaay nekk ko. waaye sama famille yaay si si wàllu baayam. dañoo bokk ci waa kër Cheikh Ahmed Tijane Serif su ma la waxee ni ma gisee Cheikh Ahmed Tijane Serif danga naan déedéet. mu mag barke laa la illallaah Muhammadu Rasulullah. kooku moom dafa ñëw seet si ma. xam nga tele laay wax. Mm-hmm. nee naa la man lépp lu may wax dama koy dogu ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi loolu laa kay dogoo mhm. kooku avion la indi ànd ak convoi mhm. comme gis nga ah, sénégalais nañ def ndànk daal mhm. maanaam ndax ah, gis nga lu am fii rek am na feneen gis nga nit ñi président buy jàll nit ñi niñ koy defee nii romb nii ñi taxaw nii ñii taxaw ni barke laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah noonu laa gis Cheikh Tidiane Chérif mm. ñëw mm. di ma seet si mm. mu am ñu rang nii ay militaires yu rang nii mm-hmm. moom yeneen militaires yu rang nii moom moo nekk digg bi comme ni ma toogee jàkkaarloo ko euh, tonton Ndiaye noonu la doxee ba yow yegg si man seet si ma nuyu ma waxtaan ak man dellu waaw yow yow dama bëgg xam yow yow da ngay seet wala da ngay ñaan wala ñaar yëpp ngay def musuma ñaan da ngay si ñaan tolloogu ma ci ah, ah mais fu mu nekk nii dama dégg ne ñii ñi seetkat yu bëri du ñu am jëkkër yow ni nga rafetee nii dégg naa ni oh. presque 18 ans ngi nii xaw ma 20 ans amoo jëkkër 17 mm, ans lu li nga àndal moo koy bañ wala non non man mm, jige boobu bugguma ci wax sax parce que ku bëggoon sama jëkkër laa ah. man dama foogoon ne àddina bi benn góor moo ci nekk muy sama papay doom moom rek laa bëggoon mais yàlla def mu am man daal comprendre ma sax xaw ma daal nan la demee. ani mu moom euh, nañ ko teg ci innahu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. ani mu moom gën mi ngi dund mi ngi fii. boobu bi nga bi nga divorcé ak moom ba léegi sëyaatoo. ah déedéet am naa ay doom kay maa ngi ñaar doom alhamdulilah sant naa yàlla. waaye bi bi nga bi nga bi ngeen bi ngeen tasee ba léegi sëyaatuloo. non non maa ngi toog. mais mais kooku kay na la jëlaat benn yoon yow est-ce que sooy seet di nga gisaat seen Ah, bu ma ko seetoon gis ko di. Ah, ah. waaw mais yàlla déggoo li ma la wax. Hmm. ma ne ko ma ne nañ ko teg ci innahu iza arada shay'an hmm. an yaqul lahu kun fa yakun moom mooy doga hmm. waaw léegi maxtaar bay maxtaar bay la tudd seetal ko parce que mu ngi wax sama nopp bi <laughs> nee nga seetal ko nee na dafa bëgg xam jabar ji muy takk nu muy mel ay ca <laughs> déedéet déedéet ay ay déedéet jëla ab bagage bagage ba ngi nii nee na gis nga ma ngay reetaan nee na dafa bëgg xam jaba ji muy takk naka lay mel seetal ko jaba ji muy takk dina mel ni yow rek rafet macha allah <laughs> waay waay bàyyi ma waay yow tamit nag ah, waay laaj ko ndax amul bu xees bu rafet ah, ah waaw ah laaj ko rek bu xees bu rafet waaw ah nee na moom ñi mu am dafa bëri de dafa bëgg nga seetal ko kan la ci takk <laughs> loolu de la wax nee na nee na nee na maxtaar bay la tudd ñu koy owee tontoo mag ah tonton Max nee na waaw nee na dafa bëgg daal nga nga wax ko parce que moom fu mu nekk nii daal. Euh, dafa xelam xelam xelam xelam dafa dafa kii ni ñu koy waxee alam. xelam dafa bëri damaa bañ a génne sekkiram ci biir nit ñi nag xam nga ah. xam nga xam nga loolu baaxul télé lañ nekk. kon moom na réglé parce que moo ma ko laaj sama nopp bii. moo ma ne na ma seetal bu fekkente ne am na benn boo xam ne mi ngi koy xaar muy am beneen boo xam ne mu ngi koy topp ci àll bu ñu waxee bi mu war a takk keneen ki dafay démissionné. ah kon gis nga ko oh, oh, oh. yow nag gis nga ko nag gën ko gis. <laughs> bëggoon naa la ko kii yow euh, système bi nga xam ne seetkat yi ñu ne mën mën nañu comme ñi mënul te di ko mbubboo ñu ngi naan ñu ngi seetal nit nekk bitim réew par exemple mu woo la nga di ko gis naan ci téléphone bi nga koy mën a waxee moom loolu nu mu demee noonu est que loolu lu mën a am la. Ah, ma di fa ne seet foog foog nit ki toog. non mm. man damay seet mm. États-Unis mm. dañ may woo ma di leen seetal. Grèce. dañ lay dañ lay oo téye portable bi nga yëngal nga yëngal portable bi mu uuf sama layu di leen wax mm. waaw waaw mm. dama lay waxal bu ñuy wax boo ma naan damaa bëgg a seet dama naan la ci mm. kàttanu yàlla mën naa nekk incha allahu bu fekkente ne gis naa mu neex mu naqari ci kattanu yàlla li ma gis rek laa lay wax du ma la nëbbu dara parce que dama ko dogg ci baatu laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah ne li ma gis laay wax mm-hmm. même bu nekkee li may wax yow gisuloo ko man loolu laa gis moom laay wax dama ko dogg ci laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah du ma tànte li ma gis laay wax mm. même bu nekkee yow gisoo ko man loolu laa gis waa léegi waa léegi nag balaa ngay quitté nag li ma lay laaj nag est-ce que Alaaji gisal nga ko ñaareel nday Njaay ngi toog di déglu de Alaaji fu mu ne ñaq na tooy xef ñaq bi baax na <laughs> awam bi baax na ah nday Njaay dama la wax parce que ni mu ko def nii ah. maanaam moom am na fu mu wéeru ba pare xamul dara sax fi mu wéeru dëgër na ah. kon Gris Bordeaux Gris Bordeaux Baye Mandione xam nga nan laa fan laa njëkk a wax ne Gris Bordeaux dina daan euh, Baye Mandione mm. dañoo toog baa ma Mandione def ni Gris Bordeaux teg ni loxo bi mm. ma ne xale yi ndam bi faas la jëm nii nii la def ni eh, <laughs> leen kii bi Gris Bordeaux am na benn instant nii la def loxo bi Baye Mandione def nii loolu rek yàlla wala mbër day taxaw sax def nii ma ne la loolu yàlla la lii yàlla la du dara nga ne fi ma wéeru daal dëgër na fi nga wéeru dëgër na. ay bañ ay weñ laa wéeru de. waaw waaw waaye waaye nooy na. waaw déedéet déedéet weñ jamu la kon fu ne nii daal Ndeye doo mujj. Mm, mm, bàyyi ko moom ak Ndeye Ndiaye fi mu wéeru dëgër na. <laughs> émission bi jeex na tàkk parce que ma bëggoon wax ma ndax dina tàggal wujj jabar ko rek bàyyi waxtu bi jeex na bi Selbé kontaan nañu lool lool lool mm-hmm. nee naa la ne euh, émission bi soo gisee ñu yëkkati ko mm-hmm. du dara lu dul pour gindi askan bi parce que lépp loo xamante ne nekk amaana am na ay foo xam ne ma ngi fay yee fitna ci dëkk bi mm-hmm. war nañ ci waxtaan ndax dem nañu ba nga xam ne sénégalais dafa bëgg seet ba daf koy conditionné ci léppam li léppam léppam léppam loolu moo tax nag euh, ñu yëkkati thème bi di fi invité ñu mel ni yow macha allah macha allah macha allah mm. di la ñaan nga tàggu askan wi. Mm. xam naa ni ne sa numéro ku ko bëggee dinañ ko joxe régie ku woote TFM rek ci serveur bi dinañ bàyyi sa numéro régie pour ñu jox la ko ndax mënuñu ko joxe comme ça en direct. Mm-hmm. Mm. waaw di di gën a santaat yàlla rek. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di e, wax ne allahuma salli ala sayyidina muhammadil fatihi lima ughliqa wal xaatimi lima sabaqa nasiri xaq bil xaq wal haadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdaarihi al azim ene inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu la wax sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam gën a santaat yàlla julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla Sénégal mm-hmm. parce que sénégalaise la musuma tukki mm-hmm. jóge fii dem Diourbel mm-hmm. Tivaouane Touba musuma dem fenn Sénégal laa am bu ma sañoon jàmm rek kay am ñu jël suñu xool ak suñu xel delloo ko ci yàlla te xam ne nguur yàllaa koy joxe bu la bëggee folli dina la folli su la bëggula folli dina la bàyyi ba nga yeggale ci kattanam nañu ànd ak dal te xam ne fii ay nit ñu baax a fi tëdd ay waliyu yu baax ñoo fi tëdd walla wu nekk rek ñépp baax fii Sénégal amul ku bon kon bu ñu jéem a indi lu bon Sénégal soxna si yal nañu yàlla musal amiin tey jii su nekkoon lu lu bon am na fi kon tey doo sañse sa lu rafet li ñëw toog kon doo ko tal doo ko tal kon toujours nañuy nañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mii boroom kun fa yakun la mu waxoon ci Ibrahima ba ko euh, yéefar yi taalalee ay matt bu koo lakk mu ne yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahima kon ñu ngi koy ñaan moom subhanahu wa taala mu defal ñu ci Sénégal ab sedd ak jàmm lépp ba lu ñu dëgmal rek ñu eggale ko ci barke laa ilaha illallah muhammadu rasulullah la alayhi wa sallam di sant nag euh, borom télé bi mhm. kooku it euh, am nañ ci moom lu tuuti loo xam ne yàlla daf ñu ko doon won ci moom mhm. ba ci lii mu lii mu jublu woon nii mhm. li mu li mu doon def nii ñun xamoon nañ ne du ca du ca egg parce que du wàlla mhm. moom maanaam bépp xéewal xéewal rek moom du ko du ko du ko jeexle ci kàttanu yàlla mhm. xéewal moom du ko du ko jërëjëf ñaanal ko jeexle waaw non loolu amul amuñ ci <laughs> sikki sàkk sikki sàkk amuñ ci benn sikki sàkk ndax dañ koy gis ci garab goo xam ne maanaam ay xob yu bees tàq lay doon mm-hmm. xob xéwal la mm-hmm. xéwal moom bu son dana toog di comme ni ñuy naan siège président ci ay xéwal mm-hmm. kooku moom werante wuñ ko di ko ñaanal yàlla nag wér ak wér le amiin amiin yàlla bàyyi leen fi tamit seen liggéey bi yàlla gën leen cee yokk ci barke laa ilaaha illallaa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis nga déggan man euh, maa ngi gërëm bu baax Selbé te xam naa bu ñëwee nii lay wax nii lay mel du ma bett ndax ku yàgg ak mbër xam mbër dépassé nañu temps bi lu bëri kon nag li ma bëgg rek mooy euh, tubaarkàlla di gërëm mère Diagne mhm. sama goro la mhm. ak Fatim mbay nekk ci parcelle mhm. ak di gërëm nag ki nga xëy da laa sopp nag lool moom itam ma di wax muy sukkay ni ma la wax léegi États-Unis ak Awa Diop nag États-Unis sa xarit ah, sa xarit bu yàgg États-Unis di rekk Thierno Diop ah, di ñaan Fat Laye Kina ak mhm. Aminata Tall sunu doom ah, fa mu dem delluwaat fa mu nekkoon it yàlla na ko yàlla feeñal jàmm teeru ko ci sutura mhm. di ñaari sama doom ju baax joo duma du ma ko fàtte moom itam mukk muy mhm. du Seck ne Espagne di gërëm nag tubaarkàlla ki nga xam ne kii itam Euh, mu ngi fii ci Almadi mm. di sama doom di sa doom di sœur du képp di mm. Kumba sàll mm. ak yaayam nekk ca Kaolack euh, di ñaan naget bu baax a baax ajaratu Awa Gaye mu soxna asfaalum Cheikh Yebra yàlla na ko yàlla defal jàmm ak Khalifa Fall ak sëriñ nag sama sang di sama xarit lool di sunu lépp Euh, sëriñ Fallou Galas Mbacke Mané yal na ko yàlla jàppale bu baax ak ki nga xam ne ki nag euh, moom lay tëjee <laughs> uh-huh. euh, muy Khady Fall Tall mi la sopp lool yal na ko yàlla fa ci sopp gi mu la sopp ak nag ki may bañ tudd aw turam di sama doom mm. te mu sant mbaw mm. maa ngi koy ñaal baax ak daadu lii <laughs> di ko gërëm leena Fall Diagne delloo njukkal rek sama waa kër yi nga xam ne ñoom laa dëkkal. waaw ndax tey jii kat buñ ne diw baax na dañ naan mbokk yaa ko wax waaye dañ naan balaa kenn ñëw ay dëkkandoom di nuyu au passage. Kumba euh, Ba jeex na tàkk. waaw moom mi nga xam ne may ma tuuti rek. waxtu bi déedéet xam nga dañ ma koy wax sama nopp dañu dañu lu yàgg ndax sa jëmm. dafa am loo xam ne dafa am loo xam ne foog ma wax ko ndax tënk ko tënk ko rek. nit koo xam ne maanaam da ngay xiif mu di la jox ngay lekk. Mhm. kookaa gën ci yow ginnaaw yàlla yonent bi dëgg la dëgg la Kumba Ba. dëgg la moo ma yore sama njaboot. mère Mato Cissé. si mhm. biir kër gi la dëkk mhm. Assu Diop. Jaaji. ah soo soo waxee seen dëkk mooy yëpp daal sama dëkkandoo yëpp daal kenn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 Euh, Galas Couture cité Kër Xaadim maam Khoudia Thioune doomu faatu Géwél Diouf madame Ndiaye chéri As Ndiaye Bale jàmm moom moo def lii maam Khoudia rafet na lool ñu ngi lay remercier bu baax a baax euh, di euh, mu ngi ci 77 503 33 71 77 503 33 71 alaaji maam Khoudia Thioune jërëjëf nuyul ma Fatou Géwél sa yaay ak As jërëjëf kon ba suba ci kàttanu yàlla.